noppaliku. bi va maa ngi bi arrêté na. yooyu noonu. lan métti loxo bi rek mooy xaw a métti tuuti xam naa sax dinañ ma bàyyi tey. dinañ la ah. bi keroog loolu la ma wax de mais maa ngi lay defaral néeg boo xam ne soo ñëwee da ngay tëdd rek dallu bu baax a baax a baax kenn bañ la sonal naa ci kanam tuuti rek. yàlla ah, baax na y avait plus hmm, nga génn sax dalal sa xelu yaay sa yaay day jooy rek. vraiment. chéri ana boobu laa la bëggoon wax ay waxam Choco lii nag du lu ndaw situation bi dafa aggravé wu. umu d'accord nañ ay fiiraangeem mag yooyu crise de jalousie loolu c'est son problème mais vraiment di dem bay di di di di di la jéem a rey parce que kii su la mënoon rey daf lay rey. nañu waxante dëgg ku jël ndox mu tàng jël fekk nit mu tëdd nga sotti ko ko kooku bëggoo lu dul jël bakkanam bii. léegi nag ñun waa kër gi dañoo def suñu benn plainte ñun ñëpp koy bindandoo ndax fii nga toog mënoo bind plainte yow bàyyi lépp sama loxo dañ koy plainte waa police jël si ko ñu tëj ko à vie ndax umu nag dafa ëpp naa. Ah. kii ne waxi plainte teg ko ci suuf yow li may xaar ci yow tey umu sa wujju la bu ko ñëpp xeexee yow dañ ko war a jàppale eh. umu li mu def. jalousie la mu gëléem moo ëpp te xam naa ko mënut a gérer ay émotion plainte bu yam mën naa koy def te je compte pas porter plainte contre waxoo dëgg waxoo dëgg yow lan la lan mooy sa problème wala umu daf laa liggéey yow umu li mu la def nii gis nga ko yow soo ci perte sa bakkan bi kan mooy perte du man mag mag sa yaay du ñoo perte umu bugg la ku ma koo bëgg doo ko toroxal doo ko mettital soo porté plainte dañuy porté plainte soo porté wul plainte dañuy porté plainte umu day tëdd loolu moo wax naa la ko fii nga toog ne nag du ma indi benn ak benn problème mais plainte moom dañ koy bind nay leer te wujjeew ma ak umu fase su demee kaso xat bu nekkatul sa jabar danga koy fase wax naa lu leer nag waaw Kine. lan lan la. man nag Oumou dafa am fa ñu jaar. loolu sama yoon nekku ci yoon newu ci. li may wax wax naa ko pare te duma ci dellusiwaat. man nga bëgg a def sa ginaaru sarax waaw kon yow bu loo ma doon takke fekkee bëggoo ma lan nga ma doon takkee ah dangaa bëggoon méttital sa jabar wala lu nga koo bëggoon yar daal nga ne xaaral ma dem jëli sama pneu de secours jël sama cahier brouillon mën nga def sa cahier brouillon su la neexee gome su la neexee xotti fay sànni man nga ko bëgg a def fii hôpital la du ma fi yuuxu du ma fi indi benn problème mais yow xam nga ne su ma fekkee kër gi leneen ak leneen la ñuy wax umu da nga koy fase mbaa nga fase ma pour mu leer umu nekkatul sama wujju yow lan la léegi yow umu gis nga fii nga tëdd nii xam nga dalaa tufe dalaa waroon dibi ba nga ñor xomb nga xam ne kan moo la fi fekk te xam nga yoonu kër gi soo bëggee ñibbisi nga soox mbaa nga raam mbaa nga direeku ba kër ga su dee man rek du man maa la fi jëlee te gis nga sa décision bii nga jël nii soo ko bàyyiwul du nekkatul man ak yow nay leer polygamie n'est pas faite pour tous c'est pourquoi man gis naa je suis monogame ay affaire ay jabar yi ni nekkul ci sama bopp benn jabar doy na sëkk. mais polygamie nga si ñett. Ah, ah mais xam nga loolu c'est à l'état civil c'est à l'état la société boo fi signé monogamie ñu mbamb la dafa ragal jabaram ba sax yow ci sa bopp la ñuy sëkk naan yaa ma liggéey ak yooyu xam nga non tu sais que et je suis man personnellement je te le la confession bu la neexee nga woote mbaboor nga wax ko mes sentiments je ne les partage <laughs> gis nga mënul nekk tu peux pas avoir des sentiments pour une multitude de femmes. yaa ngi li ngay wax góor benn la mën a bëgg xool benn moo ci xaj sama xol def naa la ci point barre. waxal de. kayit bi feuille blanche bi yow ma teg ko. mosoo wax lu ma neexee nii. classement bi sa tur laa ci <laughs> ko. yëpp ci kër gi ci yow lay dal dëgg lu ma yaa ngi koy déggu ñu xam naa ne yow nit ku baax nga li fi xew nag lu ci bari damay wax ni ci waa kër gi la kër gi dañoo baaxul seen dañ ko wax te dee saa suñu waxee nag ñu ne caam waxati na mais dinaa waxaat nit ñu bon ñoo dëkk ci biir kër gi commencé ko ci borom kër gi ndax lépp lu waa kër gi def rek di ko mbëbët di ko kii rek moom moo leen ci jiitu ndaxte moo jaxase këram su jaxasul woon këram kër gi du rëbee nii tey boo lii ko dal nattu la man mii maa ngi koy naqarul ndax bu sama sama xarit la sama toom la lu defal na ma ko biir kër gi yàlla xam na loolu ndaxte kenn du sëkk jëf te lépp lu mu fi def nag ci lu baax ci ndeyam la mu yow mi ndaxte tey am na loo xam su ko doon defal caam wala di ko defal jiw soo toogoon moom ci saal bi ni ko bu ko defal it du ko def ndaxte ndigg ndaxte ndigal ci ndigal lay tox ci suba ak ci ngoon supporté na papaam ci nu ne mu baax mu supporté ko mu bon mu supporté ko leneen li xoolal ma bàjjen mi tey li mu wax bu lépp te problème bi ñëw dal suñu kaw mu dem di défendre umu ndaxte lan ndax bina moom moom ndaxte foog na ne umu mii suñ ko jëlee tey yóbbu ko ci prison ba mariage sam du am defe naa dafa waroon nekk si sa côté yow di la jàppale waaye nag mbiru àdduna noonu la demee damaa bëgg daal nga koy muñee loolu lépp daal su ma ko résumé mooy mooy boroom kër gi kenn la te boroom kër gi moo tas këram masulu daal lool vraiment lii daal vraiment ne woon naa foo ko ma a wax la ko kër gii li may rëccu mooy li ma fa duggee lu ma duggee ci kër gi rek laay njëkk a rëccu sama àddina ndax man Thiam dama xool bu xool xaw mu ñu nit lu ñu doon ci àddina man xaw ma ay nit lañu xaw ma ay bàyyi ma lañu. nit ñoo xam ne seeni intérêt rek ku ci ne sa intérêt rek ngay dawe say bu keneen di dee wala muy souffrir seen yoon nekku ci ñoom seen bopp rek fii kër gii bopp sa bopp rek moo fi am ki ma ci gën a bett nag mooy bàjjan ndax man foogoon naa ne tey dina nekk samay côté toog dootul bëggati dara ci àddina bu ko émir doon takk sax tey jii waroon na ko ne tey taluma ko ndax sama doom waxuma la keneen mu war maa taxawoo ni tey waaye baax na ma doyloo yàlla rek ma yàlla ñii man daal ñii damaa génn ci ñoom rek. Euh, sën yàlla moom ku ko doyloo hmm? doyloo nga nga war a doyloo man daal dama lay wax ne fi nga téye foofu la sa doom nag dafa am lu ma la ciy may bis bu ñëwee tey fii ak jàmmam ak salaamam na nga ko téyewaat bu baax a baax a baax a baax jàppale ko téye ko gëmmal nag waaw lépp lu ci am rek gëmmal rek te bu faale kenn. xam ne yow sa doom la bu ku baax la de keroog sax dem naa waaye mujj maa dugg yàlla xam ne mujj maa dugg mais nag damaa bëggoon euh, am lu ma participer tuuti rek euh, soo fa delloo nga joxal ma ko nga joxal ma ko lii. bariwul nag c'est un c'est un c'est un petit vraiment euh, xeeb naa ko lool nag xeeb naa ko loolu dafa am sax benn message bu ma xaar mais jotaguma ko su ma ko jotee rek incha allah dinaa la jox nga jox ko daal parce que bu sama doom la. waaw te pansement yeeg affaire yooyu et lakk-lakk dafa xaw a doy de. waaw na koy kii bu baax ah lakk-lakk moom waaw et puis nay xool instruction bu nag xam nga affaire suukar yooyu na ko wàññi waaw na ko wàññi parce que vraiment eh, baaxu ci lakk-lakk ah waaw teel lii rek. waaw càmm ah, li noonu yow teguma la ko nag am problème kii bariwul c'est un petit 2000 rek. teel ko teel ko teel ko garaaw am problème. jërëjëf problème am soo demee daal nga nuyul ma ko quoi. nuyu ma bu baax kon maa ngi dem maa maa ngi ci jërëjëf yal na la yàlla fay. d'accord def nga lu rafet. jërëjëf. clochard la imbécile la su ma yëgoon ne nii la may def du ma ñëw fii sax naan dama koy assister yow kii ma ñëw di wax ak moom boobu léegi sama xel na dalul may tëpp tëb di dal dal mel ni bu man bu man maa ko nàmpal may wax ak moom mu ne daa daa baal jabaram jee daal moom moom moom jabar ji du ma ko du ma ko porter plainte ndax rafetul dugg na fii génn fii. ma ne ko yow kii bëggoon laa rey nga ni doo ko porter plainte man daal kii yaay seet naa ba seet jabaru faj mer la ma def nobbu ma. kii su ma noboon du ma toroxal nii ma toroxalee tey te su doon man la ko yaay kii su ma ko defoon lii tey yaay kii su ma ko defoon lii maa nga kaso ba xam naa li ma la wax xam naa li ma la wax adada bu moo yey adduna amul solo lan moo fi jar mu koy porter plainte ak sa jabar sa jabar def def li du moo defoon ci moom ñeente mag transam romb jigéen ñëpp xool ko ba bëgg ko takk ko ndogalu yàlla ñëw Eh, bàyyi leen dogalu ah. yàlla yàlla di ngeen am ak moom kii de ay détail de lu waay def rek su ko neexee rek ñu leen dogalu yàlla la yàlla moo ne ko jëlal ndox mu tàng nga sotti ko sa jëkkër arrêté leen waaye yéen tamit nag am nga lan laa la yëg yow dafoo ji ne jàpp la fàcc na sa jikko ji bàyyi sa jikko ji imbécile ji yow doomaraam nga trop ah gat xam naa bu doon yow danga koy tëj kaso dama koy tëj fa lay dee à vie la fay nekk te mbuus di xoolal mbuus yaa gis nga mbuus su tëjul umbi mii man dama koy bàyyi damay tas sëy bi damay ñibbi suñu kër parce que nekkuma fi ñu may toroxal bu may wax ak moom mu naa ma noonu ummi moom dafa nopp mi kii yaay do kaful de dafa nopp mi man xam naa li ma la ko takk ko sama yoon nekkul bëgg nga xam ne sëy la ko takk tas ko bu doon yow i dalay baal donc du baal xam naa bu du ma baal du ma baal lan mooy problème bi umu lan la ma ëppalee léegi yow loo bëgg mu mu mu tëj ko maa mu fase ko ndeysaan waaw ndeysaan mu tëj ko yow yaa bon maa sa ginnaaw sama yoon sama sama yoon sama ginnaaw man yaa dara safuma gis nga kii su ko ummi defoon dibi mbaa mu lakk ba mu ñor xoom nga yaakaar ne su ma ci xamoon li naa teg sama tànk na dee te su dee du ma ko téenji te yow tey na ngeen def ah kër gi anañu ah sama ñëw na sama ñëw na ah alhamdulilah ah. Aliou waaye dama laa xalaat ba sonn. ñooñu waaw sa tànn mbay mi moom koy alhamdulilah rek. waaw. ah. toogal. sant yàlla rek. papa toogal. sant yàlla rek. bu toogal maa ngi koy sant yàlla sant yàlla damaa jooy ba kii li mu jooy. moo tax ñëwuma. kër gi fii ñëpp def nañu. maa ngi eh, eh, man damay laajte wala damay laajte. Ah. si eh, tokk si moo taxoon bu nekkoon hôpital wala du lii. si si yi nga xam lii yow kon nag te umu kuddu ndox rek la jël sotti ko ko waaye buul ak lii nag jënd tëddi hôpital fi am fa ay fan ma ne pour man da laa sotti da laa lakk yow ba fii ba say um. man loolu laa yaakaar nit ki siit sii la. bu na góor yàlla nga na lii jërmën naa dem nag hôpital nag xanaa man boo ma woon sax si néeg bi ma ma fajal la ko wut ndox ak xorom bombal la ko si bandaasal la ko lii jër ne nii yow li gënoon a métti traversé woo ko ah ba dugg néegu góor gënul métti eh, yow nday mais fii affaire de morom amu fi bu yow dugg yow yaay genre yooyu ñu ñu dugal foofu nga yuuxu di saaga wala dara yow moom genre yooyu nga yow lii jaroon na dem fooyam dañ waxante dëgg bu nag góor yàlla nga lii moom jaru woon dem foofu man rus naa am naa gàcce ndax lii koñ mi ñëpp a triste woon ku ne di jooyoo naa bu yàqu na yàqu na nag te lii la awaan man yàlla yàlla na ma yàlla baal waaye ak li ma ci daj yëpp sëriñ bu ne ma dem ñaan fa yàlla na douleur bi wàññeeku lu ne naka te lii la waaw man yow sama sëriñ ni kon ayo ba xaalis bi ma si ñàkk na ba lan laay wax man ni ak ak montre sax jaay naa ko si ni problème euh, buub bi pour yàlla wis ndox mi seen naka te toog si ne. loxo bi lii lépp la liñ bàyyi la yow bàyyi ma lii waay yow. lii sax yow mii rek mënoon nga ko faj nga mënoon yóbbu dem ba hôpital. man nga tëdd kii la ñun nag clinique euh, clinique wala yow da nga bëggoon a noppali ko waale. boo mënu boo bu dee da dem ba takk ñaar jabar mënuloo leen dara jarul woon nga boo bëggee congé ñun mën nañ laa bindal demande. bindal ko say jabar ne la may leen ko congé mu dem noppaliku waaye prétexte bu ndaw bi nga dem. yoo fi jooy waaw biopil ñoo ay rek lii giraawoon na de. joo bàyyi ba lii du kaa sa sama nde maa ngi dee nag te lii la woon. waaye tànn Ndiaye noppi. noppi ma sa mag ji naka te kii. daa bëgg naa góor gu dëgg ah, yow amoo xol de yow la ak ni mu méttee ci xol nga bëgg ko koo xeebal. yow moom amoo benn respect yow. waa déet ba awa man lay manque de respect. yow demal léegi ngeen xuloo def nga xam naa la demal waaba. da nga da nga yëg ci biir. lii jarul dugal dugal ma yow dugal lii da. da nga yëg ci biir. ma yow bàyyi yoon la. ma ñu sampal la ci perfusion nii. dama tëdd noppal. hôpital de xam naa am nañu kii nañ. gis nga yow gis nga yow gis nga yow gis nga wax ak yow. waaye yow kii war ngaa wax ak moom naan ko ay ba nga duggee nekk góor kër gi mais kii doo ko jot. kii kilifa la loolu métti yow loolu dëgg la wala dëgg. waaye yow du dëgg kilifa la kii sa kilifa la. man man man maa kilifa wala mooy sama kilifa. waaye yow dama ni kii góor la bu ñu góor jigéen góor du teew ñuy def jigéen kilifa. waaw yow bàyyi ma nag lii moom jarul woon dem hôpital ba. yàq ngeen xaalis. waroo tudd nekk gërëm da ngaa ëppal da ngaa war a régler Ndeye Ndiaye. régler ma waaw da ngaa war a régler bàyyi sa yéen. régler ma laa la wax ni yéen yéen ni ngeen ngandal ni ma jooy ci lu ne man jooy naa te lu ne def naa ko si toog lekku ma naanu ma nag xale bi yërëm ko nag te lii la wóor. xam nga yow fi mu ne koo manque de respect ñi ko faj ñooñu la yàlla may kii boo gisoon ni mu xonqee fii li mu bandi nii ah waaw man ñi ma nettal ñëpp ne leen yaramam yëpp a yàqu man après lan laa leen di wax yow kay yaa jël sa téel ma rek dem fen say fen te xamoo nu mu demee ah, demoo hôpital demoo fen say fen waaye yow man ki ma jox ah, ah. information bi moo moo moo mbaaxul ak la ko jox du yéena na ma yàq yéena ma ne la yaa dem bëgg say information dem fen say fen. Hmm. kii du sama mbokk yi kilifa kilifa la bu doon wax waaw waroo ko wax daal. mesure waaw sa doom a tax ngay. waaw ah, ngay làkk doom doo moom laay wax waroo sama papa fi nekkul moo tax nga may wax. ma yow na sa papa ñëw en ah, marché nga koy. ngay làkk doom doo doom. moom waaye yow waroo ko wax lii loolu waroo ko ko wax eh rek ngeen di def waaye yow sa saak ba defar nga ko. dematuma annulé naa anniversaire bi defatuma ko àndatuñu. nga ne dematoo yow. damaa annulé man kase dem man tundum xanaa ma invité nit ñu dem. yow dematoo anniversaire dematuma annulé naa lépp sama diggante nga sax dégg fexeel bu bul dégg na nag àndu naag astu nga koy lijjanti wala nga koy ki loolu moom na la leer nañ man du ma dem di wéet lu leer laa la wax dégg na nga dégg li ma la wax rek waaw kii xamuma sax lay yow astu lay àndal man mi wutoon ma xam ne asoo aay mën na doon ko teg diil laa <laughs> ilaaha illallaah may nga yow dimbali nga ma laa ilaaha illallaah foofu baax def jaaxle woon rek massa nii gu ma a sax ñu hôpital di jàkk di la tiim mënuma ko woon waaye buur lu la dal rekk mën naa ni maa ko yóbbee ah kay lépp man la ndax umu def na lu ne ci kër gi ma téye ko xas na ma fi saaga na ma fi ba poñe ma fi fii sa papa wax mu saaga ko lépp ma di ko nëbb bañ koy nga yëg ko moo tax tey ma ne loolu dal rek maa la ko yóbbee li lépp man la nag ma baal bu baax baal ma de doom yaay bul ma baal ma tooñ li am lu waroon am yow yaa ma jàngal muñ yaa ma jàngal gëm yàlla yaa ma jàngal nangu dogal nga les qualités Tu m'as toujours prescrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je reste stoïque. Que nous le voyons am na rek am na. mu nag lu def xëy na ëpp na. dama jàpp ni c'est juste une mais maa ngi sant yàlla bu baax mu ñëwaate ci kër gi erreur lay bañ nga di ko wax du benn erreur doful dina jàpp ko pantongul ko li mu def moo ko tayaatoo dafa bon rek waa kër gi nag ñépp ngi ñëw naan mën ko porte plainte na ko porter plant waaye loolu ñuy wax neexul a tekki mooy dëgg umu dañ koy porter plainte yóbbu ko ci yoon ndax mënoon na laa rey déedéet lan porter léegi soo ko porté plainte noo koy def. waaw eh, déglu ma rek y a toujours été raisonnable dama bëgg nga dem jusqu'au bout de ton raisonnement wax naan ma la te ko dal dafa metti pas au point yaay da ko doon xoole ci sa bopp li mu def c'est impardonnable c'est impardonnable. alors mais une sanction n'est pas la solution. La meilleure des sanctions qu'on peut le faire, joxaatoo une seconde chance. jamais seconde chance kan nga joxe seconde chance um yow da ngay xaru xanaa da ngaa bëgg mu jekkal la rey la nga dee benn yoon yow est-ce que ça va dans ta est-ce que la. ko takk njëkk ma xam ci góor maa ci combien de fois la ma demande ñu génn kër gi mën a vivre son ménage ma bañ jël intérêt des autres teg ko ci bosam waaye man maa def ay erreur topp beneen jigéen bu ñëw ci biir kër gi une fille bu ñëw ci dans son ménage waxtaan ak moom ñu présenté ko ko mu am ay liaison avec son mari mu géré ko ma xëy takkal ko deuxième femme te préparé wu ko man naa waroon préparé wu je l'ai xam naa ban genre jabar laa yar nit la koo xamante ni elle est impulsive mënut a gérer ses émotions li ma mënut a baal um mooy manqué la respect yow wala sam papa kenn ci kër gi mais li may teg man rek mën naa ko attan surtout bu ma gisee ni man personnellement je suis pas. sans faute dans cette histoire yaay umu moom pare pour may ko une seconde mu dellu si ci tànkam fii ci kër gi dee moo ma ko gënal bañ koo fekke umu su naree dugg ci kër gi bu ma génn abal la léegi nag dinaa kaa choisir entre elle et moi waaye umu du dugg ci kër gi.